أنت المجيب والكريم والخريب إليك وحدك فرغت dafa am nag ci ma nekkoon xam naa ni bu nu weetee dinaa la ko wax waaye lépp sotti na Mbàkke sant yàlla bu baax a baax a baax te nun liñ fiy indi ak liñ fiy def suñu poos suñu ñàkk lay jóge mante bu ma ci état di indi de man sama ñaq laay indi état dëgg la am na solo ci lañu bokk waaye lu ñu dénk la nga jël di def ay teraanga bokkul ak kii ñaq-ñaqam jël ko di defi teraanga bokkut démb tey soog a ñëw nag Mbàkke ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di di sant Serigne Touba ñi ngi sant bu baax di sant sëriñ Touba yàlla dimbale nañu am nañu métier yàlla dimbale nañu xam nañu ki ñu doon dem nañu dellusi xam sunu bopp nag moo tax ñu fonk réew mi xam ki ñu doon moo tax ñu fonk réew mi teg ko fi ñu ko war a teg. di ko seet nag guddeeg bëccëg kenn ëppalewuñu ci kenn mënuñu ci kenn gënuñu cee xaraj junju doy na borom xel Mbàkke la ma doon toppatoo yépp sotti na antal mujib wal karim wal xarib ilayka wahdaka faraqtu min siwaak fakun bisaaka xaydi ilaa